salaamaaleykum mbokk yi ñuy teewlu ci net bi TV Sénégal jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun ñuy am mbégte ngeen di leen dëgtal xibaar yeeg li jot a ruuse ci biir réew mi ci kàllaama kocc lañu koy faram-fàccee tey ci samedi bi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier ci atum deux mille vingt deux deux mille vingt trois du moins xibaar yi dañu koy rekk daal di doore ak lu ñeel euh, Pape Alé Niang mi nga xam ne daal dinay génn rek ci pat pataralam gi mu nekkee li ko waral mu di situation bu metti bi muy dund moom ci boppam moo ko dal di xamle euh, la mu jot a xamle nag moom moo di dafa mel ni ku nekk prison à ciel ouvert ndax métier mii di métier journaliste bu ñu moytuwul sax dana ko bàyyi ndax contrôle judiciaire bi nga xam ne ci la nekk lu bare bare def ko rek daal di tënk ba mënatuñu ko rek daal di tuddee ab taskatu xibaar noonu rek la ko daal di xamle ne fi ne contrôle judiciaire bi ak yi nga xam ne moom lañ ko tegal dafa daal di metti ba yegg ci lool mu yaakaar ne sax li nga xam ne moom moo di. métier mi amatu ci euh, place ndax mënatul rek daal di liggéey euh, librement ndax xool nañu bi ñu ko jàppee euh, ñaari yoon yi nga xam ne jot na kaa rek daal di dugg kaso ku nekk wax na ci ngir mu daal di génn waaye itam grève de la fin bi nga xam ne amaloon na ko gisoon nañ ay soppeem doon wax sax na ci jàpp bu muñ ko dakkal balaa muy rek xaru faatu ci biir kaso gi ginnaaw si loolu itam ay nit yu bari yu koy ñaan nee nañ ko mu daal di bàyyi mu sedd bu ko deful rek dañ ko delloowaat ca kaso ga te bu boobaa ay njabootam dina sonn ndaxte bu liggéeyut itam du am lenn loo xam ne moom lay dundalee ay njabootam. ñu daal di àddu wax ci leneen mu di euh, lu ñeel euh, procès Adji Sarr Ousmane Sonko bi nga xam ne maître El Hadji ci di ci rek wax de moom nga woon ca ci noonu daal dinañ wax rek ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ay waxam yu ci bëri ay kàcc la waaye itam dafa rek di lëgëy sénégalais yi li muy wax li ci ëpp dara lu ci dëgg waaye li nga xam ne moom moo di procès bi buñ ci yeggee daañu xam rek kan moo nekk ci dëgg ak kan moo nekkul ci dëgg daal di chargé ki nga xam ne moom moo di euh, capitaine Touré mi. Bassirou Gueye euh, dal di traité de fou ci conférence de presse am bi nga xam ne moom la doon amal ni ki bërki démb maître El Hadji Diouf itam dafa daal di ñëw dolli ci xar mi karaw ngir rek daal di leen di yàq lu mel ni keteme euh, mu di ñi fare ci camp wu Ousmane Sonko yëpp lu mu leen euh, bàyyil amul waaye itam jot sax daal di yëy ci li nga xam ne moom moo di coow yu fi jot a daal am yëpp ci wàllum politique ak woote gi nga xam ne Ousmane Sonko woote na ko maanaam appel à la résistance ci jamono ji nga xam ne ci la dal di yóbbu ca kaso ga ndax ñaari dossier yi nekk ci kanamam bi ci jiitu mu di Mame Mbaye Niang mi mu war a rem rek dal di wuy ji convocation ñaari fan ci weeru février gi ñu dëkk mal ak procès bu Adji Sarr bu ñu fas yéene amal ca sembre criminelle te jàppaguñu date ba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bu ngeen ko déggee xam ne naqar ak la mu di axlu làmb gi ñàkk promoteur bu mag boo xam ne tey làmb bu yëgsee fii daal dina ci jouer role bu ama am solo mu di Serigne Modou promoteur moom nag moom moo daal di génn àdduna ni ki tey ci hôpital Dalal Jàmm bi ci Géejawaay ginnaaw loolu itam yàggoon na daal di feebar waaye feebaram ñi ko yëgoon bariwul li waral nag mu daal noppi waale lu ni mel bëgguloon benn yoon ku xaw yi suturam ba noonu sax lañ ko entré woon ci hôpital dalal jàmm bu ñu sukkandikoo ci ay mbokkam ak kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ba ni mu génnee àdduna dal dinañu koy jébbal boromam ni ki tey nag sëgi jullit ya nekkee ca Touba. accident yaa ngi wéy di am ginnaaw Kaffrine ak fa nga xam ne rek moom moo di euh, sàkkal yeneen accident yi nga xam ne jot naa rek daal di amaat di rup euh, weer wi ñu nekk mu di euh, janvier beneenub accident bu yees daal dinay am ci diggante Mbour ak fi nga xam ne moom moo di euh, Sandiara mu di benn njëge njaay bu dajee ak pour particulier ju fukki nit ak juróom-ñett am ci ay gaañu gaañu euh, ci fukki ak juróom nag ñett yoo ci xam ne ñu ngi ci am ay gaañu gaañu yu méttee métti euh, noonu rek la ñu ko daal di xam le ba yóbbu nañu leen ca l'hôpital bu Mbour fa la ñuy saytoo seen yaram jamono ji le temps que ñuy gën a xuus ci enquête ba mën a rek daal di xam ana lan moo sooke bi lépp accident. bu ñu jugee ci accident ba xew ca Sandiara ak ca Mbour beneenu accident boo xam ne itam am na ci Parcelles Assainies unité 26 ab njaganjaay bu dajee ak moto Jakarta moto Jakarta ba nag yàqu na yaxeet chauffeur moto ba ci boppam sax mu ngi ci situation bu doy war waar naam bu fekkee ne ka sax ñàkku ci bakkanam waaye am na ci ay blessures yu bëree bëri noonu rek la ñu woowee sapeur pompier ñu daal di fay teew ak police ba ñu ñëwee dal di amal constat ba waa ji nga xam ne nag moom moo di chauffeur Jakarta bi am ay gaañu gaañu yu méttee métti daal dinañu ko yóbbu ci l'hôpital le temps rek ñuy tegandi loxo chauffeuru euh, Ndiaga ndiay bi nga xam ne rek moom moo daal di mbëkk chauffeuru euh, Jakarta bi ñu dal di wax ci wàllum people ginnaaw soirée le vingt huit bi nga xam ne ñaari artistes ñoo ko doon xëccoo mu di ab date boo xam ne rek xalaatoon nañu ne dana jur buzz ak coow lu métti métti ci Sénégal mu di euh, Pape Diouf ak kii di di Wally Balago Seck ndaxte ñoom ñaar ñëpp rek dañoo waroon dal di tëgg ni ki tey ca Baaramundi ginnaaw si loolu ñoom ñaar ñëpp kenn mujjee faa rek dal di tëgg li ko waral mu di ay coow yu am ci suuf. tax Pape Diouf mi nga xam ne dafa rek daal di euh, signé ak Baara Mundi lu leer ci nu mu ko waxee ndax moom daal dinay génn sorteem boobu nga xam ne ab vidéo la mu def daal di koy partagé ne daal dinay euh, saisir li nga xam ne moom moo di justice porter plainte leeral itam lan moo tax muy liggéey ak Baara Mundi ci ñoom ñoo ko soxla woon ba noppi daal di koy oolu ah, tey situation bi toll fii ah, ñëpp teg ci seen bës gis seen bët gis ni mu demee ah, ba Baara Mundi dañ dañ kaa daal di tëj ba ay dogal yu yees yu ci war a mën a wàccaat waaye Pape Diouf nee na moom du ko bàyyi mu seddee noonu daal dinay porter plainte boîte ba ak responsable yi boîte ba ngir ñu mën leen a daal di àtte teg ci kaw seen kaw ay daan ndaxte fi ne jàpp na ne rek moom Pape Diouf mësul def ci musique lu ñaaw mësu caa def lenn lu ñu ko ciy tuddee ci lu bon kon dañu ko tooñ te ku ñu tooñ da ngay daal di saisir justice noonu rek la ko daal di xamle ne na it ngi xaar yoon daal di àtte ci coow li nga xam ne jot na am te mu jàpp ne dañu ko tooñ moom euh, géné moom leader bu génération consciente di euh, Pape Diouf ñu wax ci. ñu wax ci l'international euh, bi di euh, Keita Diao Baldé euh, di app sénégalais boo xam ne ma nga ci Argentine li waral coow leeg mbirum adultère gi nga xam ne moom la koy jiñ te ki jiñ du kenn ku dul ab naataangoom di Mauro Icardi ak soxnaam si le di Wanda ndaxte Mauro dafa daal di dem ci Instagram publier fa ak des millions de followers di xamle ne Keita Diao Baldé mi dafa rek daal di seq ak ki xam ne moom moom moo di jabaram ab jabaram di Wanda ginnaaw si loolu publication boobu daal di viral lool ba tax Kaolack la ci jota rek daal di am yëpp benn taskatu xibaar boo xam ne mu nga ci Argentine daal di jote sax jokko ak ñaari euh, ñaari nit yi nga xam ne coow li mu ngi seen kaw mu di euh, Keita euh, Diao baldi ak ki nga xam ne moom moo di soxma soxnaam di Simona bi loolu amee itam waxtaan nañu fukki simili ak ñett yoo xam ne la ñu jota rek daal di tënk moom moo di weddi li nga xam ne moom moo di ay accusation yu Mauro Icardi teg ci kaw l'international sénégalais bi waaye itam soxna si Diawa Baldé Keita di uh, mor di uh, Simona jël apposition di xam ne ne mbir mi dara amu ci dañoo rek daal di jaloux ñoom sax bëgguñu seen i tur uh, jegeñaantoo ba ñuy bokk fu ñuy naanee verre ndax ba tey mi ngi expliqué sax taskatu xibaar bi ne ko moro woo na ko waaye ba mu ko woowee lam ko jot a wax moom moo di jëkkëram dafa daal di envoyé message ki nga xam ne moom moo di jabaram mu mel ni coow loolu fi ne moom moo rek daal di def buzz fa nga xam ne moom moo di Argentine ci noonu itam sénégalais yi daal dina ñuy réagir ne lu ñu def Benjamin Mendy ba yàq carrière waruñu ko mën a def ki nga xam ne moom moo di Keita Diao Baldé jalousie daf cee rek daal di am ndaxte ñoom ñaar ñooñu bokkoon nañu sax club bu ñu nekkoon waaye seen diggante demewul woon noonu mu di Keita Diao Baldé ak kile di Mauro Icardi mbokk yi xarit ñu doon euh, teewlu ci euh, net bi TV Sénégal amoon nañu mbégte gu yaatu yaatu ngir di leen faram-fàcceel xibaar yeeg li jot a euh, ci biir réew mi dinañ leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen jotaayu xibaar ak yeneen i ponk yu ñu war a waxtaanee abonné leen activer seen i cloche de notification di leen jox dig daje ëllëg incha allah jaa ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm.